jërë ngeen jëf mbokk internet Actubuzz TV jërë ngeen jëf ñu amati mbégte kontaan ma baax a baax ñu baax ñëw seet si waat li nga xamante ne mooy Sa Thiès ñu fas yéene waxtaan saa fi lañ doon waxtaanee ci mbaar mi mbaarum sëñ Fallou maa ngi nii mbaarum ummi maa ngi nii ummi mu sëñ Fallou maa ngi lay nuyu saa maa lay fay abu di sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sant sumay ñaari waajur du nuyu waa Géejawaay xam nga du nuyu fi nga ma fekk ni comme ci mbaar mi lépp ci mbaar mi lañ ko waxee avant te ci mbaar mi lañ koy waxaatee tamit après. waaw maa lay nuyu bu baax di la bëgg abu di la siyaar waaw. Uh-huh. ñu woon ci combat bu Balla Gaye Tapha Tine mu nekkoon moment bu doy waar moment bu difficile nga waxee fi moment boo xam ne moment bu danger moment bu soog parce que vendredi daal jël si non xaw ma daa mel fan waaw jour tam xarit ma gis nga wax ci lu doy waar saa kees. waa abu xam nga sénégalais yu bëri dañoo réere mbir ci Balla Gaye quoi parce que xam naa ni nit ñoom dañuy fàttali fi Balla Gaye def rek. waaw mais tamit c'est normal parce que bu ñu xoolee Tapha Tine dynamique bu mu nekkoon moo gën a nekk topp ko Balla Gaye c'est normal Tapha Tine doon favori ci làmb jooju xam nga ñu def bala aw seddeur bi mais Balla sampion la man abu damay vee fii fi nga ma fekk nii fii laay toog chaque jour ba quatre di du matin man chaque quatre heures du matin Balla Gaye daf may romb fii ànd ak njambaan fii lay gaare otoom chaque quatre heures di matin njambaan génn ñu ànd dem dîner moom njambaan chaque quatre heures du matin nag laa la wax sans musique sans dara sa quatre heures du matin Balla Gaye daf may fekk fii ànd ak njambaan dem dindi neuf heures dix heures day jotaat ci guddi ma gisaat njambaan génn ma ne ko fooy jëm mu ne contact laa jëm ma gis coona maanaam man dama jàppoon njambaan sa mooy préparé combat ndax état de forme bi ma gisoon njambaan nekk mu doy waar attetement athlète bi nga xam ne moom mooy préparé muy Balla Gaye parce que coono bu mu daj ci combat bi njambaan daj na ko si man njambaan ñoo dëkk chaque jour fii la ma njambaan di romb quatre heures du matin nag laa la wax quatre heures du matin kon xam ni kooku disé woon na am na lu mu bëggoon waaw parce que sénégalais yi fi ñu ko tegoon moom mu xam li mu xam xam li mu gëm mhm. daal di waajee noonu nag làmb ji nag koi lamb ji jeex mu bari révélation mu nekk mbir mu doy waar ñu ñaan mystique bi dafa bari ci côté tafatin ñu ñaan dafa dañ koo jàpp léeg-léeg lii mais yow avant lamb ji toog nga fi wax lu am solo def révélation am solo nga ma ab musuma waat ci lamb lamb damay waat nga ma billahi wallahi taala Balla Gaye da koy daan man la ah sakis vaar am na de nga ma lu may xam ah, lu doon ci man surprise Balla Gaye daan ko te du moowu ko waaw loolu maa ngi ciy gërëm borom leget bi borom leget bi maa ngi ko gërëm bu baax a baax a baax mhm. ndeysaan musuma wax luy dañ ci lamb waaw na ma yàlla baal te jégal ma ci kàddu gi mais su ma woon ne ma suba ngay faatu wallahi lazim ma fay yu bor musuma wax liy dañ Sa Thiès Eumeu Sène dama ñëw ci moom bi ñëwee suba la làmb ji mu ne ma li ma gis ci làmb ji rek mooy Eumeu da leen di daan ba ngeen jaaxaan ma ne ko lan mooy saraxam mu ne ma amul sarax c'est trop tard bi may dem stade xam naa ne maa ngi dem mais tey du baax amul làmb ju may ñëw mu wax làmb ji nii lay demee la moom li gën a gara daf ma wax ba wax ma ni muy demee buñ koy dóor dañ koy dóor suñ koy daan dañ koy daan buy daan nii lay daanoo te xam nga ko man xam naa ko dañ ci def code <laughs> si ta la da guerre bi ma ñëwee lu ma wax jëlu am te noon la làmb ji demaatee combat yi ci bëree bëri bëri nii lay demee te si ta Modou Lo di ma jël si waat àdduna tab ko dëmm waaw si ta Modou Lo di ma jël si waat fii xam nga nii nii dee na ma wax na ma ni làmb ji di demee surprise bu bëree bëri wër mun na am ci combat woowu. gars ko. mais boo ma jël si waa dañu tam ma dëmm. si te Modou Lo. allah ren. mais mais mais ëllëgu Balla Gaye ci làmb lan la ak li Balla Gaye bëri keroog xaaral nga ci bëri bu neex bi Balla Gaye bëri. waaw xam nga xam joo xam ne avant xamoon nga ko. Mm. man li bettu ma ci woon. waaw parce que man gis naa sa stat yi. waaw ah. 10 heures nga sa tiset. Ah. dem te maa ngi nga ne ku bëgg a teg na ñëw ngeen teg lu mu bëgg. waaw mooy làmb yoo xam ne man xamoon naa lépp lu muy demee comme làmb ji man loo nekk surprise si man. dëgg la. parce que avant wax nañ ma ko. xam nga maa ngi koy gërëm bu baax. sama kilifa gi. di la siyaar di la màggal. maa lay ñaanal jàpp yàlla yokk xam-xam bi. waaw di la waxee daal yo gënal yokk di ñaanal rek. waaw maa ngi koy gërëm bu baax. di ko sant. waaw. mais ëllëgu Balla ci làmb lan la. waaw Abu man Balla Gaye pour man amatul ëllëg ci làmb quoi parce que Balla Gaye def na lépp. vingt six ans nga doon roi des arènes xam nga njëkk doon ampleur des arènes. waaw xam nga tegle ñi nga tegle daal leen ci àdduna. ba làmb di jeex ni dootu ko defati. wax dëgg fa ne yàlla sénégalais ñoo gaaw a fàtte rek. Mm. mais wax dëgg ne yàlla man man man man man man bi Balla Gaye daane Tapha Tine zibilé wu ma. parce que li tax zibilé wu benn benn bi si jiitu mooy Balla Gaye defal na ma lépp. waaw man mënatu ma mënatu ma mënatu ma defal dara ci àdduna. lu mu mën a bégloo. mënatul mënatul ne. parce que lépp lu supporter di di di bëgg ci athlète man Balla Gaye defal na ma ko defal na ma lépp maa fa la kii daan Modou Lo deux fois mm-hmm. daan Tapha Tine fois mm-hmm. daan Gris Bordeaux deux fois mm-hmm. Tyson Baboy Tafa Gueye kon kooku mënatu la defar dara dara dara ci làmb ba mu ba mu kii la appel bi may lancé waa Géejawaay mooy ci moment bii nii nii nii nañ ko def arrêt Balla Gaye dafa war am biir Géejawaay dafa jot def benn monument bu mag dafa foto Balla Gaye ne fii mooy arrêt Balla Gaye 2 dafa jot moment bii lañ ko war a defaree waaw ñu xam ni nag waaw croisement Balla Gaye dafa jot géejawaay loolu par force dafa war a am parce que dafa luñ lépp tey géejawaay am na niveau bu tol toll nii wallaay la si Balla Gaye moo tax nit ñi xam géejawaay géejawaay mi man man abu damay voyage wala ma génn wala ma dem fenn su ma nee foo dëkk su ma nee géejawaay rek looy njëkk a wax rek Balla Gaye nga ciy teg waaw comme loolu moom suñu fierté suñu sag suñu ndam la mu defal ñu lépp ñu koy ñaanal suñu borom yàlla defal ko jàmm yàlla defal ko tawféex yàlla defal ko sutura man la man Mama ku neex jëlal ku neex bëreel ndax mënatoo ma defal dara dara dara ci làmb ba mu saf ma lépp lu supporter di am pour mbër mbër bëggal ko man defal nga ma ko yaa ma indi ampleur yaa indi roi des arènes ñi ñi ñi nga tegle daan leen kenn munu leen daan ci àdduna yow yaa ko njëkk a dem kon man ku la neex jëlal waaw moom mu jël baax na cool yi bëri ci côté bawol bawol yi ñu bëree bëri génn def révélation seen mbër dañ koo jàpp mystiquement mais mbër ma ñu fay million fay sa morom million est ce que loolu maanaam logique na ci làmb wala abu tafaajin kenn fayu ko ay xobu garab fayu ñu ko ay xobu garab de ay millions yu bëree bëri bëri la Baye njaay compté jox ko lu ko tere dem uti uti mystique combat bu dem pendant six ba sept mois ah nga war a dem préparer ji looy xoolee bañ lay jàpp si musique alors ay ay waxi ndax sa xandang la rek tegul fenn tabaati lu muy xoolee bañ koy jàpp waaw moo jàpp lu boppam bu dee dañ koy jàpp si musique waaw. dafa mel ne communication bi gars yi doon wax Tapha dafa mel ne ku ragal Balla dafa feeñ ci combat bi. waaw ah, non ñemewu ko xam nga koo bëreeg Mbapat 2005 bëreeg moom 2013 ñëwaat ci 2024 te heure bu ngeen daje mu daan la. xam nga daan sa mag nga xatraay nga ñëw mu daan la. daanaat la daanaat la pour nga ñeme ko mënul yomb mënoo koo ñeme. noonu la demee rek. waaw mënu koo ñeme quoi. ñu bari di wax ne Balla Gaye Eumeu Sène wala Balla Gaye day wala Balla day xaar Siteu wala Balla Gaye ñu fu mu bëbali ku wax. man moom Balla Gaye doyal naa si Balla Gaye Modou doyal naa si Balla Gaye Gris doyal naa si waaw man su amaat su ma mënul am Balla Gaye Boy Niang Balla Gaye Siteu mhm. waaw. mais Balla Gaye Modou Lô Balla Gaye Eumeu Sène Balla Gaye Gris Bordeaux yooyu doyal nañ no yooyu moom doyal naa parce que Balla Gaye bu demee Eumeu Sène mooy ñun xam nañ da koy daan parce que Balla mu mun Eumeu Sène fuuf ñaari combat yëpp nu mu demee la woon rek mais bu Balla demee Eumeu Sène da koy daan su demee Modou Lô da koy daan xamoon na ko la ñuy wax mais day jël na wàcc may booy loxo may booy chance ñu ñëw na may booy chance ñu yéeg mais ci kaw moom man doyal naa si quoi. dëgg la dëgg la. Mhm. gars jël ay kàddu gi jëmale si Aziz Ndiaye ay dafa sot dafa tëgg mooy dafa dañoo sot tafaati léeg-léeg mais est ce a nekk si ñaata mbër a nekk si digg yow dèjà si fu mu nekkoon ca kaw tribune bi fa la ko Aziz sotee waaye nañ bàyyi seen affaire yi ñuy def waaye Aziz ni ku baax la doomu géejawaay la c'est normal mu far Aziz seen këriñ fii ci ginnaaw boo tourné soriwul Aziz fii la dëkk fii la juddoo fii la yoro fi la màggee si li mu am lépp ci dëkk bi la koy delluwaat créer ay employé ci dëkk bi am ay entreprise si dëkk bi ay doomu dëkk bi di liggéey ci dëkk bi lépp di demaat ci biir dëkk bi da ngaa gis wala Indien bu ñëw di liggéey si Aziz Ndiaye ñëpp ñëpp ay sénégalais lañu kon kooku boo ko ñaanalul waroo ko xalab wala nga koy xas wala ngay teg si dërëm lu ñaaw Aziz suñu boro moo ko tàccu def ko ni mu mel. xam nga yaayam gërëm ko papaam gërëm ko moom ñaan waajur. noo ko sénégalais bàyyi bàyyi wax bu ñaaw bu ñu teg si deru Aziz. Aziz ku ko ñaanul waroo koo xalab. Aziz ku ko sant waroo koo xalab. parce que nit ku baax la. xam nga mi ngi def lu baax ci réew mi. Mm. mi ngi jëmale réew mi kanam. di créer ay emploi loolu kooku kooku mention spéciale lañ ko war a mais kooku kenn waru koo xas kenn waru koo dëgg la dëgg mais mais mais mais lambu am na ubbiteeku ah gis nañu lambu jamono ji ah retour Baye Ndiaye ci lambu am na solo ci lambu sponsor ñëw nañu millions yi bari nañu. mais alburax mooy lambu yow alburax ay lambu yow. laay léeg-léeg ñu defaraat ah, di ko ñaanal yàlla may ko ndam ci diggante mooy Diène Kairé. waaw yooyu yëpp ay làmb yu neex la. waaw ah, loolu yëpp ay làmb la yow xam nga lépp. loolu yëpp ay la fils de Balla ñu ngi koy ñaanal parce que doomu dëkk bi la doomu géejawaay la. xam nga géejawaay lay yeewoo géejawaay lay tiitaroo lu mu am géejawaay ku gën a. ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam ci diggante mooy Diène Kairé te day am ndam bu soobee yàlla mhm. waaw mhm. Mhm. lamb tey nu muy déroulé lan lan moo la ci neex ak bis bi keroog événement bi nga xamante ne Balla Gaye bëri na ko lan nga gis foofu ci culturel ak lan nga gis tamit keroog ci ci xeetu lamb. waa Aziz keroog dama seetaan benn gaan ci tribune moo wax bu am solo na lamb bu doon jëmm la heure boo demee di nga ko fekk kër Balla Gaye muy ataaya. mais walaay wax na dëgg su bu mënee fanaan dafay fanaan. bala gay mooy lamb. te di waxaat tamit sénégalais yi nañ bàyyi doomu jàmbur. Balla bu daanoo ñu ne daa màgget. Balla bu daane ñu ne misik la daanee nu ne daane na ko nu ne nu ne xam nga nañ bàyyi doomu jàmbur bi mu nekk ni mu mel ni suñ borom moo ko defal ba àdduna du jeex du gisaat mbër bu mel ni Balla Gaye ci àdduna dootul amati mbër bu mel ni Balla Gaye dinañ dund ba dee dootul amati ci àdduna waaw moom nañ ko ñaanal jàmm ñaanal ko tawféex ñaanal ko sutura yàlla suñu borom defal ko jàmm xam nga waaw ca kaw ca kanam daal ñun waa gejaa kontaan nañ si yow ñu ngi lay ñaanal di la wax champion defal defal nga ñu lépp defal nga ñu lépp lépp defal nga ñu ko wallaahi laajim bu fi amoon sax tey mu neex lépp defal nañu ko. loolu hmm. bari xas tafaatin boobu léegi di ko affiché ay tàppet nga ak léegi lii mais est-ce que waruñu xam ne lii làmb rek day jeex. waaw mais abu bool bool li foofu dañoo juum xam nga tafaatin dafa def ci làmb loo xamante ni ci VIP yi gisoo ko koo def <coughs> malgré jëlu roi des arènes mais abu. est-ce que xam nga 2007 ba léegi Tapha Tine ñetti yoon la fi daanu 2007 ba léegi laa la ñetti yoon la fi daanu ba Balla Gaye ñaari ak Ama Baldé waaw bi mu jugee ci Ama Baldé 10 ans daanuwul ban VIP moo ko def mais Balla Gaye mii nii dafa daan Yékini 2012 2013 14 Bombardier daan ko yaa ngi dégg Modou Lo 2019 Balla Gaye da koo daan bi fi jugee ñaari victoire la ci kaw di nga yéex a gis VIP laa la wax nii bu teg la quatre combats quatre victoires di nga ko yéex a gis si kaw parce que làmb ji kenn mënul kenn. waaw kenn mënul kenn. Balla Boye Tapha Tine Tapha Tine c'est un grand champion. wallahi la azim. Tapha Tine nii nii mu bëréew la roi dafa mérité doon roi des arènes parce que li ma def la roi des arènes def wala li mu def néew na roi des arènes bu ko def à part yi ni kan nga mus gis mu toog dix ans daanuwul kan nga mus a gis avant roi des arènes avant kii Yékini mu toog 10 ans daanul amul menum Tapha Tine moo def loolu moo fi toog 10 ans daanul comme bool bool nañ bàyyi loolu te xam ne kii ñu am ni seen mbër la champion la nañ ko jàppale làmb mi ngi si kanamam Tapha amul lu muy per amul lu muy ñàkk xam nga te sportif la nañ ko ñaanal di la tamit grand Tapha ñu ngi lay ñaanal suñu borom defal la jàmm defal la tawfeex beneen combat boo am budul mbëru géej yàlla defal la ndam parce que man dama koy supporter man budul géejawaay wallaay laaj dama koy sama gars yi man budul géejawaay man dama supporté Tapha Tine dama supporté Tapha Tine. jërëjëf saa kees dëgg taxatul. waaw Abu lii dama bëgg nga génneel ma ko. maa ngi sant suma xarit sama doomu ndey suma waay sama lonko buuse Ketchup. yaa ngi dégg buuse sama waay la suma lépp la. Mm-hmm. Abu buuse sénégalais nañ ko bàyyi xel. barki alxuraani karim buuse dina lakk ñu bari Abu. billaay wallaay wa taalaay bi ñu waaj man njambaan moo dama xam buuse buuse dama ñëw mu yóbbu ma ba biir këram yëkkati xaalis bu bëri jox ma yëkkati huit mètres jasineer jox ma dama ñëw ko ci màggal gi nekk nit ku baax buuse coono yi mu daj ci combat Balla gay bii nii a xaalis bu mu si ñàkk wallaay lazim nit xamu ko fu ne la dem voyage ci combat bi pour Balla Gaye am ndam jël xaalis bu bëree bëri bëri daj ko su ma demee ba jaaxle su ma ko mu ne ma maama sa waay dama koy daan bul jaaxle te musuma wax ci làmb luy dañ musuma wax ci làmb yi dañ nekk nit ku baax xam nga créé tamit moom it entreprise si dëkk bi di fay ay sénégalais minimum minimum minimum plus de vingt personne ñi ngi liggéey ci biir restaurant Boucher ñoo xam ne chaque fin de mois leen di fay kooku dañ ko war a jàppale gën koo dooleel ñaanal ko parce que mi ngi créé emploi si dëkk bi yorul téléphone am di sinap di wax li mu yor yemale ko si njabootam li mu yor da koo di ko tasaale waaw kooku maa ngi koy ñaanal baax di ko sant di wax la deux nag di woo ñëpp ne nañ dajaloo ñoom ñëpp la deux def mouvement bu am doole plus bi laay bañ ak ummi tara boole fi la départ bi la deux na ñëpp ñëw bu kenn des di sant ñëpp di wax gars sama copain nañ ko jël njambaan ah, njambaan dafa war a bëre saa ma lii ngir yàlla yonent bi ñambaan dafa daj ay coono yu méttee méttee méttee métti ci kombaam ak Balla Gaye daj ay koom coono yu méttee méttee métti man dama jàppoon ñambaan mooy bëreeg tafaatin ndax ci état for forme bu mu nekk na ko gars yi jël na ko gars yi jël mu bëre waaw di nuyoo di sant gars di gërëm ñëpp di sant sama copain Badou sama agent sama ménagère moom moo yor sama lépp moom moo sama lépp maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm di nga wax déwén nag na waaj de jërë ngeen jëf mbokk yi di waxati mbégte contentement amatina jaaxle jeex na ci réew mi Sénégal waaw waaw parce que suñu produit yi di produit yi am solo ñu defee ko à base de ñebedaay mooy li nga xamante ne tey képp koo xam amee suukar mu mbirum jabet boo li nga xamante ne mooy ñebedaay bi am na ci solo lool lool lool wala ñi nga xamante ne mooy dañuy entraînement soxla ay li nga xam ne mooy ay protéines ci côté développement musculaire boo jëlee suñu produit yi da ci am def ay développement yi am solo beneen bi bépp xeetu jàngoro boo xamante ne day nekk ci yaramu nit ki mooy ak feebar yi xamante ñooy jamono ji li ci mel ne li nga xamante ne tey ak mooy euh, grippe ak yeneen yeneen et cetera base de ñebedaay bi la ñu liggéeyee li nga xamante ne mooy euh, produit yooyu noonu dañu ci def ay taxawaay am solo lool lool lool lool lool di nit ñi a ah, sénégalais yi daw leen ngeen songu li nga xamante ne mooy produit yi produit am solo la ci li nga xamante ne ci wér gi doomu aadama ki nga xamante dafa am problème homosexualité xa koo xamante ne góor du gaaw a yëg boppam ay na ci wala jigéen koo xamante ne du gaaw a sentir plaisir ay na ci li nga xamante ne mooy ci côté boobu daay li wax li muy def ci doomu adama bi bari na parce que gàncax bu euh, lañ lañ ko liggéeyee muy produit naturel ay bio naturel xamante ne la ñu am na vitamine A ak C li nga xamante ne mooy ci côté xale bi nga xamante dafa ak koo xamante ne dafay gaaw a daanu gaaw na ci lool lool mooy